salaamaaleykum mbokku internetu Sénégal ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay di leen jaajëfal déjà ci taamu bi nga xam ne taamu ngeen ko site bii di senego.com euh, di fi taataane information jëmale ko ci mbirum Sénégal ak quelques sujets yoo xam ne dafay concerner la diaspora sénégalaise tey ñu am mbégte ñëw fii ci permanence Alliance pour la République di fi amal entretien ak kii di Pape Mayel Thiam. mu nekk administrateur général parti bi di l'APR le parti au pouvoir euh, seen leader en tout cas nekk le président de la république son excellence Macky Sall mu doon nit koo xam ne mooy polariser ci réew mi pratiquement toutes <laughs> les actualités politiques Pamé ñoo ngi lay nuyu di la jaajëfal bu baax di la gërëm ci taamu bi nga am bon ci ni nga ñu nangulee entretien bi. maa ngi leen di nuyu di leen ziara di nuyu seen euh, bépp ku leen di suivre. parce que ci sama xam-xam yéen a ngi ci réseaux sociaux yu bëri ay Twitter ki yéen a ngi ci YouTube Facebook Instagram hmm, am application boo am doole am application boo am doole nga xam ni àdduna bépp leen di wër mbooleem ku leen di seetaan rek maa ngi koy nuyu di ko sargal di balu àq di bal ñëpp àq di ñaan yàlla suñu waxtaan bi yàlla nañu suñu borom orienté ci mu jëm ci njariñu askan wi ak mboolem ku ñuy déglu. déjà Pape Mayel euh, Thiam euh, xaw ma ndax yaa ko liggéey xaw ma ndax sa parcours la ci biir parti bi tey personne ne peut dissocier ton nom ak parti bi de Alliance pour la République euh, c'est la personne ou c'est c'est c'est un choix que vous avez porté en vous. en vous projetant à ce dans le parti. daanaka mën naa wax ni que ni loolu lu yàlla dogal la rek xam nga dans la vie d'un homme di nga toll foo xam ni euh, la ngay doon day nekk résultantu sa parcours. Hmm. am na ñoo xam ni également la ñu doon lii sëñ Mansour si di wax naan ku gore ku ne di nga ni budul woon yàlla ak jiw hmm. euh, man su ma toogee ci politique. dem ba ci occuper yenn responsabilité yi yàlla ak euh, Macky Sall la ak kóoluteem ndax nag avant moom musuma bokk ci benn parti politique Alliance pour la République APR yaakaar mooy premier parti politique bi nga xam ni am naa carte de membre am waaye yemul foofu rek mais ki nga xam ni moom mooy kilifay parti bi óolu ma dénk ma ci ay responsabilité comme ni mu ko dénk ñeneen euh, mu nekk loo xam ni euh, lu yàlla dogal la jëmale ko ci sama carrière ma nangu ko bu baax également di ci bëgg am am ci aussi honneur bu rëy ndax lu mel ni président de la république bu demee ba wóolu la dénk la kuréel goo xam ni ay doomu aadama ñoo ciy daje ñu bokk benn bëgg-bëgg léeg-léeg mu mën a am ay woroog yu kenn xamut waaye ñu jël teg la ci bopp kuréel ba ngay nekk administrateur wu partie bi kooku euh, am dama ko ameel njukkal di ñaan yàlla nag fu ma mën a toll fexe ba nga xam ni la tax mu teg ma fi ma mate ko sëkk euh, yombul nag ndax doomu aadama rek la euh, dama am ay qualité naam am naa également ay défaut boole koog nag ñi nga xam ni ñoo bokk ci parti bi nag yombalal ma ko waaw ndax jàpp naa ni que ni buñ ma ko yombalul woon kon xëy na amaana loolu ngay wax du nekk ñu ci sant yàlla bu baax a baax di ci ànd ak nag euh, dal di ñaan yàlla it euh, yàlla bu ñu nattu ci ñuy jaay daraja jëmale ko ci mel ci lu mel noonu. Euh, nekk ci partie déjà yombul parce que militantisme tey euh, ku ko wax ci Sénégal ñu bëri dañuy jàpp ne da nga war a am dara surtout rawatina partie au pouvoir yow Pape Mayel rarement wala sax man mosuma ko dégg ñu lay dégg ci ay xëccoo poste di exiger yenn en tout cas poste de responsabilité ministre premier ministre ainsi de suite pourquoi pas assemblée nationale parce que am nga dayoo bi xam nañ na borom xam-xam nga euh, lu tax loolu choix la wala tamit da nga xam ne nit dafa am nu mu war a comporter woo ci biir parti boo fa bokkee. waaw jërëjëf laaj nga mu laaj bu am solo xam nga euh, nit dafa war di am bëgg-bëgg waaye dafa war di également taxaw saytu. pour ngir mën a am fu mu sukkandiku ba sant boroomam yeewu suba rek te dara jotu la rek dafa doy sant suñu borom fàttaliku nag mooy tolloon nañu ay jamono yoo xam ni ku ma laajoon lan nga gën a bëgg ci wàllu politique dama naan la Macky Sall nekk président. te nag bu neexoon yàlla loolee sama bëgg-bëgg boobu mënoon na bañ nekk te it ñëpp ñi nga koo dégg mu naan gisuma ci sama bopp ak Euh, joxuma joxuñu ma responsabilité tolloon nañu ay jamono nga doon dem di yee ay nit ay gor ni yow ñu ñëw bootu sa ginnaaw di àndax yow amu ci kenn koo waxoon kaay jàppale ma ngir ëllëg ma nekk ministre amu ci kenn koo waxoon kaay jàppale ma ngir ëllëg ma nekk directeur général ba ñu doon woo suñu militants yi dañ leen doon wax kaay leen jàppale ma ma jàppale président Macky Sall mu jël réew mi dawal projet bi nga xam ni ñun ñoo ko tëggandoo ensemble te wóolu ko mu nekk ci bopp waaw lu loolu nag bu yàlla defee loolu ñu doon ñaan te mu itteeloon ñu lool ñu dem a dem ba jëmmi jamono mu am ñu doon ñaan lu mel noona yàlla xañ leen ko ñun yàlla jox ñu ñu jël suñu leader teg ko ci bopp réew mi muy dawal programme bi nga xam ni mi ngi koy dawal bu mucc ayib ah ndax mënuñoo sant yàlla ca la nga xam ni que ni ñooñee ñu doon woo tey ku ca weddi woon yay nañ la ku ci àndoon nax ñu nit gis nga ni que nii la ñu bëggoon ci réew mi moom suba su xëyee mi ngi koy doxal ndax gis nañu résultat yi mu fa donc boo xoolee loolu day daal di nekk loo xam ni dafa jar ñu ni alhamdulilah rabbil alamin dëgg la nag doomu aadama bu nekk boo sañoon foo toll di yokk waaye euh, yokkute dëgg li ko sëñ Hadj Malick doon waxee mooy tawféex. Mm-hmm. tawféex rek moo jare a jaan yàlla. Mm-hmm. tawféex mooy lan mooy nga ànd ak xel mu dal. yàlla euh, xiir la ci boppam mooy euh, nga fexe ba sa sàmmoo jukko ju baax nga fexe ba di bañ di làqatu nga fexe ba say say say say say soppe du ñu dox mukk ba dégg ñommee boo def bu leen di jaral gàcce loolu mooy tawféex waaye euh, responsabilité yi président de la république moo koy joxe fu mu ma wax nii jàppale ma fii rek ma jàppale ko fa. Hmm. maanaam yow da nga am un militantisme presque désintéressé si on peut le dire comme waaw bu la neexee désintéressé mais du ma wax sax désintéressé je ndax ki nga xam ni moom laa topp ci ginnaawam di ko jàppale muy président Macky Sall bu fekkoon ni defu fi lu jar ma jàppale ko kon ba ko. Hmm. donc je suis intéressé mais dafa am ay niveau d'intérêt xam nga hmm. dafa am loolu ñuy wax la la pyramide des intérêts bu hmm. dëgg am na ñoo xam ni dañu jël ca sommet pyramide bi seen bopp rek la ñu jël teg fa hmm. waaw man nag suñu borom dafa ma nattu ci sommet pyramide bi njariñu askan bi laa fa teg suñu su ma su fekkee nag suñu borom dafa jàpp ni njariñu askan boobu daf ma ci dëxañaale ci some sommet pyramide bi mm. fa lilahi alhamdi su fekkee ni suñu borom dafa jàpp ni njariñu askan boobu da koy teg ci sommet euh, sommet pyramide bi waaye man ma nekk ci suuf su boobaa gannaaw maa ngi dund di lekk di naan du ma lekk riba mm. ah mm. damay sant yàlla maa ngi ànd ak wér gu yaram am na ñoo xam ni tey fi ñuy wax ak yow mais kenn sañu faa dem di wax waxi poste ndax am na ku ñuy waajal waaw man nag lu may def nag dama koy teg ci tawxiid ndax nag loolu moo jiitu te mooy mujj waaw moo ba tax na bu nit jógee di bokk ci benn kuréel dafa war a xool xoolaat bala mu ca bokk xam lan la kuréel ga laaj la mu laaj bu dee mën na ko mu bokk ca bu dee mënu ko mu baax boo xasee nag ba bokk ci kuréel la nga xam ni moo la taxoon a jóg moo tax kuréel ga jóg tant que kuréel ga ma nga ca di ci dox ka nekk ca bopp ba di ci dox di ci wax mais da ngay sant yàlla. da ciy tënku. doomu aadama nag. Mm. dana am ay bëgg-bëgg. Mm. Euh, poste yooyu ngay wax tey bu ma fa président tegoon it euh, je vais pas cracher dessus. Mm-hmm. mais je veux dire que ce n'est pas déterminant. n'est-ce pour que ma nekk. Euh, un bon militant. un bon militant. dans un parti comme l'Alliance pour la. République euh, ngay euh, administrer tamit un parti gis nañ ne ces derniers jours y a beaucoup de révoltés on peut comme ça surtout du côté des jeunes. ndaw ñaa ngi naa ngi en tout cas euh, di ñaxtu jàpp ne dañ leen a xaw a beddi dañ leen xaw a fàtte euh, est-ce que yaa ngi jéem a dox ay jéego pour pouvoir résoudre en tout cas problème yi mel noonu. dëgg la xam nga euh, loolu nga wax noonu mooy wane ni que ni parti baa ngi dund su bëgg-bëgg amutoon kon euh, euh, suñu nekkin dana doy waar faaw bëgg-bëgg am tey doomu aadama bu njee ànd faaw léeg-léeg mu am ñu mer waaw bu mer jotee ku merul rek doo nit <laughs> waaw mer bu jotee ku merul doo nit waaye nag mer day passé. booy dem nañ ba grève la faim de mais mais mer boobu day passé mais bu xasee ba passé ku mer dof nga. Hmm. ba tax na euh, comprendre naa également cette jeunesse là ñi nga xam ni que ni xale yu jàmbaar nag. Hmm. xale yu jàmbaar xale yu xarañ xale yu déterminé xay xare xale yu engage wu derrière le président de la république maa ngi fàttaliku keroog ba ñu bëggee dugg Pikine. nekk dans position ñu waroon def benn mitin meeting CFA terrain CFA te booba jamono yooyu régime bi fi nekkoon ni Macky Sall du dugg Pikine xale yooyu ngay wax ñoo jóg ñii lu gànnaay bu ñu mën a jël rek ñu jël ko jàkkaarloog ñi fi nekkoon xeex ba ñu dugg biir Pikine kazalika naka noonu gisoon ngeen problème mu caaroy euh, ba ñu demee nu mu tëddi ngaay mexe ak ak feneen ak feneen yoo xam ni xale yi fu ñu mës a taxaw dañoo taxaw temm xale yu jàmbaare lañu xale yu am pas-pas lañu xale ya loo xam ni tey ku dugg teer sa xel war na dem ci xale yooyu hmm. ku jël Ila Touba sa xel war na dem ci xala ci ci xale yooyu ku fi jot bourse familiale sa xel war na dem ci xale yooyu ndax nag ñoom ñoo bokk xeex ànd nekk benn fexe ba porter suñu leader euh, à la la magistrature suprême je comprends que bu ñu defee xeex boobu bokk ci éla ñiy élaborer suñu projet comment mm. je comprends que bu ñu demee ba jël nguur gi war a opérationnaliser euh, projet boobu je comprends que ñoom ñu bëgg ñu bëgg bokk ci acteurs yi opérationnaliser la c'est humainement compréhensible dafa di daanu dajul suuf ndar xëyul xëy sotti te à côté de ça bari na ci ñoom ñu bari lool ñoo xam ni fi mu ne nii ñii am nañu xëy ñii amuñu xëy ñii financé nañ leen am na ci nag benn segment boo xam ni des na te mu nekk préoccupation président nekk suñu préoccupation mm-hmm. yàlla booleegu leen ci instrument yi nga xam ni président de la république teg na ko pour faciliter insertion des jeunes faciliter également l'auto-emploi. on peut pas satisfaire tout waaw yàlla sax defu ko. waaw mais li may wax rek mooy. Hmm. Euh, nañu négandi dafa metti na nag xam naa loolu ndax nga tollu ci ndaw bëgg a dimbali say waajur bëgg a takk soxna te mënoo ko metti na waaye hmm. euh, conjoncture mondiale la. Hmm. boo demee tey États-Unis taux de chômage bi na mu toll kenn mënula la koo wax soo demee France que zalika naka noonu amul benn réew boo xam ni am nga le plein emploi aujourd'hui mais terewul nag xale yooyu ngay dégg li ñuy coow coow coow di ko wax dañuy wax seen bëgg-bëgg rek mais tey la ñu gën a gëm président Macky Sall tey la ñu gën a taxaw pour jàppale président Macky Sall te bés bu ci nekk maa ngi leen di recevoir di waxtaan ak ñoom di dem si ñoom dafa di nag eh, lu jot rek yomb. Hmm. xale yi bàyyi nañu seen grève de la faim xanaa. Euh, am na ñu ko defoon bàyyi nañ ko. Mm. ah xam nga xale moom euh, dafa laaj ñuy koy taxawu di ko dëfal di ko teg ci yoon di ko servir ci suñu expérience. Mm. Euh, waaye noo def. Euh, foog mu am ñu ñu naan euh, moolu ndaw noo def mu bajantu. <laughs> waaw loolu am na solo mais est-ce que commencé wul di bëgg a bëri ci seen parti que ay nit di révolté wu ay nit di mer ba di ko wane par exemple souvent gis nañu kaaw Mimi Touré. Euh, problème mu poste moo waral tey posture boobu mu am ko lu luñ ko digoon la selon ses propres dires joxuñu ko ko est-ce que tey jotul ngeen jéem a xool ni ngeen di régler problème bu mel noonu sur le cas particulier de Mimi Touré. xam nga euh, organisation humaine boo gis il faut mu am ay choc li ñuy wax choc des ambitions dafay am également am na ñoo xam ni euh, seeni capacité émotionnelle. bokkul ak capacité émotionnelle lu ñeneen. Mm-hmm. am na tey ñoo xam ni boo leen mbéjoon ak lu mu métti métti. mën nañu xool ba xoolaat la daal di muuñ dem seen yoon. am na ñoo xam ni boo leen dompatee bala ngaa àggale ñu yàq sa kanam loolu yëpp on le sait kooku ci organisation humaine la euh, c'est normal sa participe de la vitalité de notre parti mais pour ñun. Euh, on fait le maximum pour fexe ba mbooleem koo xam ni responsable nga wala même le militant ñu fexe ba loo mer mer nga toog ci biir partie bi parce que nag bëñ ak làmmiñ ñu dëkk waaye terewul léeg-léeg ñu daje. et vous pour le cas de Mimi. Euh, pour le moment non. pour le moment pour le moment pour le moment la xanaa xamoon ni man bokk naa ci ñi nga xam ni tey bu ma sañoon tey. président Ablaye Wade ñëw militer ci APR damay wax c'est c'est utopique ce que je dis mais pour wax la rek ni que ni en politique c'est la loi de l'addition mmh. c'est la loi de l'addition ñëpp la ñu soxla tey la ñu gën soxla ki nga xam ni dafa contre président de la République tey lañ ko gën a soxla tey la ñu gën a soxla nga nekk responsable wala nga nekk membre opposition gis ne suba suñu xëyee ñi ngi dox pour waxtaan avec des ténors de l'opposition parce que peut-être que am na ñoo xam ni dañu nekk dans l'opposition parce que comprendre ñu am na ñoo xam ni dañu nekk dans l'opposition parce que euh, pour des raisons de bienséance am na ñoo xam ni dañu nekk dans l'opposition par nihilisme donc yooyu yëpp il faut ñu def dans notre démarche on adopte une démarche de couplage ah segment message segment bu ci nekk ak message bi nga xam ni ak démarche segment approche la bëggoon wax segment bu ci nekk ak approche ñi nga xam ni dañu dañu bañ suñu régime bi bañ président Macky Sall parce que dañuy toppal ma toog rek la ñu bëgg am na benn approche bu ñuy def ak ñoom ñi nga xam ni que ni dañu nekk dans l'opposition parce que comprendre ñu am na benn approche communicationnelle bu ñuy def ak ñoom. ñi nga xam ni dañ ci nekkoon ci biir dema dema dem ba mer. parce que peut-être seen gis-gis ak gis-gis bi dafa xaw a waroo am na approche bu ñu def ak ñoom c'est ça en fait la politique nekkuñu fii pour utal président noon kilifa kenn du ko utal noon nekkuñu fi pour utal ko noon dañ fi nekk pour di ko jàppale di vulgariser réalisation yi mu fi def mhm. di vulgariser vision di ko expliquer population bi fexe it ba ñi nga xam ni dañoo àndox moom mu téye leen waaye téye leen nag ci kaw lépp nag ñu ormal ko moom jox ko gëddam ndax nag kilifa mënut nekk sa kilifa ba pare nga ni da ngay wax ak moom mel ni kuy wax ak euh, maanaam un berger loolu moom duñ ko nangu mais taxawaay bi nga xam ni ci la ñu taxaw suba ak ngoon mooy fexe ba ñi nga xam ni dañoo contrôle président de la république ñu fexe ba ñu ñëw ànd ak ñun jàppale ko ndax yoon bi mu teg Sénégal jàpp nañ ni mooy yoon bi gën ci Sénégal. d' accord nga administré parti boo xam ne dafa bokk ci coalition muy benn bokk yaakaar ci 2022 ñu organiser fi au minimum deux élections majeures élection législative locale suivie des élections lok yi locale ñu gis ne bennoo dayoom dafa xaw a wàcc tuuti selon en tout cas euh, le constat ci ñenn ñi euh, yow parti bi ngay gérer te muy boot coalition boobu déjà. Euh, ndax ban jàngat nga am ci résultat yooyu ñu commencé ko ci élection locale yi. xam nga élection locale yi. bu la neexee nga gis ko nu nekk mais man gis-gis bi nga xam ni am naa ko. Hmm. mooy ñi nga xam ni dañoo ànd ak président de la république mais ñoo gagné bu soree sore sori élection locale yi ndax ñi gagné ñi ñi gagné élection yi am na ñoo xam ni dañoo dem jël mayo maron beige ñee dem jël yeneen mayo mais ba élection yi locales yi jeexee. mais ñoom ñëpp dañoo dellu si ci kër gi. <laughs> kon bu ñu neexee ñu ni xëy na mayo ya gañe wute nañu. dëgg mais ñoo bokk waaye ña sol mayo ya mais ñoom ñëpp ci njaboot gi lañ bokk. Hmm. te seetlu li ma la wax dans tout le territoire national gis nga bëri na fi ay leaders de l'opposition yu naan yu bëgg a capitaliser résultat ya ña ña soloon seen mayo ca élection locale yi mais wax leen ñu woo leen mënuñu leen a woo. man te ñooñu ñu ngi leen di gis guddeeg bëccëg ñu ngi ñëwaat dellu si nañu ci kër gi mer moo leen yóbbu woon moom laa lay wax sànq bu mer jotee ku merul doo nit waaye bu mer passé ku mer dof nga te ñooñu du ñuy dof ba mer passé dañoo bàyyi la ñu nekkoon lépp. ñëw delloo si ci biir kër gi. <laughs> élection yooyu kon ñun ñoo ko gañ. d'accord bu dee élection législative yi ba tey. Euh, maanaam li ma la wax pour ñu firndeel ko ci élection locale moo gën a yomb ñu firndeel ko ci élection législative mm-hmm. ndax ci élection législative raw gàddu la ñu jël ñaar ña nga xam ni ñoo nekk ca bopp ba kan ña raw ñoom la ñuy jël wala wala kenn wala juróom selon département yi mm-hmm. moom mooy dem assemblée nationale mais maa lay xamal ni que ni bari ci ñun également ñu meroon meroon dem ci ay liste xaajale suñu électorat mm-hmm. mais bari na ay gox-goxaan yoo xam ni Euh, liñ ñu gagné boo ko xoolee par rapport à nos voix damay jël lu mel ni département Rufisque département Rufisque ñun boo totalisé ci élection législative ñun li ñu am ñun ci ay voix mais dafa multiplier par deux li nga xam ni moom la opposition bi am pour gagner élection yi c'est la loi am na lu xew ci diggante bi. am na waaw li xew ci diggante bi mooy euh, maanaam ñàkk déggoo am na ñàkk waxtaan am na nous n'avons pas réussi à mettre tout le monde euh, sous le même maillot euh, on l'a subi mais te xam naa ni foofu nga bëgg a ñëw ñooñu ñëpp buñ leen dajalee ñu bootu ci président Macky Sall ku mu jàkkaarloo fi dóor la dès le premier tour. est-ce que di ngeen di ngeen ko réussir. gis nga. Euh, Euh, euh, le Sénégalais damay faral di wax ni c'est l'électorat le plus intelligent au monde l'électorat sénégalais c'est un électorat lucide te lucidité boobu sénégalais yi am dans leur processus de vote dans leur processus de décision de vote boo ko méngalee ak li nga xam ni moom la fi président Macky Sall wone ci diir bu ndaw bi mu fi nekk yokk ci gis-gis bi nga xam ni moom la am fa mu bëgg a yóbbu Sénégal nga combiner ko ak enjeu géopolitique mondial nga xam ni nous sommes entourés par une ceinture de feu nga xam ni que ni tey on vit une crise mondiale à l'époque maa ngi doon wax naan ci temps wu Covid bi ñu naan on une crise man leen déedéet dundaguñu crise ba la ñu dund crise mbate Covid bi jeex parce que bu Covid bi jeexee loolu ñuy wax défragmentation day am repositionnement war a am te mag le président de la République comprendre na ko très tôt xoolal tey bu ñu demee tey ba naan Afrique mi ngi bokk ñu ngi ko de di benn tànkam mi ngi ci g grace au président de la République Macky Sall suñu demee tey bay wax loolu en ce qui concerne euh, le statut de membre permanent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies ak yeneen ak yeneen yoo xam ni que ni euh, du sa fonction moo la koy may mais sa personnalité moo la koy may te élection yi ñu jëm si on est d'accord que c'est le rendez-vous d'un peuple et d'un homme kon mën nañu bu ñu dee évaluer suñuy chance xool quel est le véritable profil de celui-là que nous on considère comme étant notre candidat et en regardant ça combiné ko ak l'intelligence électorale des Sénégalais mais suñu xel du du def lu dul dal d'ailleurs ña nekk ca beneen wàll ba te bëgguñu mati Sall dem xam loolu moo tax bëgguñu mu nekk candidat ñoom dañu évaluer le niveau d'intelligence électorale des Sénégalais évaluer la la qualité du profil de notre candidat évaluer également la perception des Sénégalais en ce qui concerne la situation géopolitique de notre pays fi ñu toll nii évaluer également les enjeux liés à au changement de notre statut d'un pays agricole à un pays pétrolier méngale ko ak yeneen situation yoo xam ni am na ay écueils yoo xam ni ñoom bëgguñu ñu dund ko ci Sénégal bi ñu xoolee loolu yëpp xam ni que ni l' intelligence des Sénégalais l' intelligence électorale des Sénégalais édictera de reconduire Macky Sall bi ñu xamee loolu moo tax ñu bëgg anticiper ni intelligence électorale u Sénégalais yooyu du fi amee. te suñ ko defee rek ñi ngi def en entorse à la démocratie parce que c'est la démocratie c'est l'expression de la volonté populaire loolu nag moo tax ñu taxaw naan Macky Sall du fi nekkee candidat mais bu leen leeroon ni que ni yooyu ma la wax amu ci dara lu ci vérifié wu kon Macky Sall du leen tiital dañuy ak du problème mu candidature am sax du nekk problème dañ koy bàyyi mu dem en sachant que dañ koy gagner mm-hmm. mais nag ak lu ñu fi am ci ay jombe yëpp euh, loolu avec cette intelligence de, de, de l'électorat sénégalais, est-ce que ça ne va pas porter un coup si c'est une candidature au cas où c'est validé en 2024 euh, On a les 45 milliards, par exemple, ne euh, jàll na euh, le rapport de, la Cour des comptes, et à qui maintenant quoi xam nga euh, déjà problème mu 45 milliards yooyu xam nga réew kenn du ko gérer noonu te même ñi nekk ci opposition bi des fois dama leen damay wax ni que ni nañu xaw a dal ndax koo xam ni da ngaa bëgg a euh, yor réew war nga ñaan yàlla fekk ko ci anam yu taxaw maanaam ay bànqaas yu am doole kenn du dégg ni benn dossier rek di ci wax noonu xam nga affaire u 45 milliards yooyu ñuy wax man laa wax ni duma ci wax parce que à partir du moment où benn mbir. nee nañu mbir mi secret d'état la mm-hmm. parce que nag il faut ñu xam ci lan la nekk dañu nekk ci république mm-hmm. dañuy jàng droit dem nañu ba ñuy bay bay évoquer la raison d'état il faut ñu républicain il faut ñu andiwaat cette culture républicaine à partir du moment où une affaire est estampillée euh, secret d'état man duma ci wax mm-hmm. rapport yi nga wax rapportu Cour de comptes yi génn récemment déjà xam nga le premier point d'analyse bi ñu ci war a def mooy rapport i génn na président de la république liir na ko ñu koy doog a vulgariser mais bu fekkoon ni yeneen réew la bu bu ko président de la république lire duñ ko vulgariser. Mmh, parce que moom moo ko demandé. donc ça veut dire que sénégalais yi war nañ xam ni que ni le président de la république ci benn registre transparence la nekk. Mmh. mooy première chose. deuxième chose ay la yéwén maa ngi doog a gis opposition bi jël benn posture valider position wu ay magistrat <laughs> c'est extraordinaire pour une fois pour une fois l'opposition fait la promotion de la crédibilité de nos magistrats alhamdulillahi rabbil alamin mais l'opinion devra prendre acte que ndekete yoo li ñu doon wax naan que ni nos magistrats sont des magistrats corrompus ils sont à la merci du pouvoir en tout cas lii wane na ni que ni c'est le contraire muy deuxième point d'analyse troisième point d'analyse bi mooy li nga xam ni moo génn ci rapport yi li ci ëpp du ay incrimination li ci ëpp ay recommandation la te gis nga il faut ñu am loo xam ni ñu koy séddale mooy ñun ñëpp sénégalais yëpp kenn ku ci nekk danga nga war a am taxawaayu euh, ormal sa nawle ormal sa naataangoo ndax mu ni tell rek ñu ni damm na fi mu ne am na ñoo xam ni yàq nañu seen der tax kenn te ñay wax xamuñu sax la nekk ci biir te ñooñu loi bi dafa ni bu rapport bi génnee dañ leen ko war a yónnee ñoom la nga xam ni moom leen leen di tuumaal bu fekkee ni am na lu ñu leen tuumaal ñu andi ci ay réponse andi ci ay leer-leer ay leeral ba pare su boobaa kuy doog a wax nga doog wax mais aggaguñu foofu. àggaguñu foofu. mais la moo tax nga teel a génne rapport bi te yeggaguñu foofu. te non loolu moo ko wax loolu suñu loi réew moo wax loolu du ñun ñoo génne rapport bi ah. Mm. non ñun laa wax ñun en tant que parti man bi rapport bi di génn yëguma ko suñu yoon nekku si. parce que ñun dafa am état am exécutif. non l' état lay wax. waaw non man nag fi mu ne di waxuma ci waxuma ci turu état même état boobu dafa am nu muy fonctionner. Mm. dafa am exécutif am euh, le judiciaire am le législatif. alors donc euh, magistrat yi cour des comptes ñoom ñoo estimé que nii yoon may na leen ñu publier rapport yi ñu publier ko. Hmm. le problème c'est pas ça mais ni leen ko mayee ni leen ko yoon maye la yoon également wax ni que ni ñooñu nga xam ni dañoo tudd seen ci rapport yooyu. ñu leeral ñoom it ñu daal di leeral. Hmm. rax ci dolli man de ci li ma dégg gis ko ci rapport yi dégg ma ñu ni kenn jël na alal dugal ci poosam. dañ ko dugal ci yeneen anam ci yeneen. mbir hmm. kon nañu est-ce que détournement aussi. du genre de corruption parce que gis nañu fii benn nit sept projets par exemple gagné ko ci benn ministère te benn nit bi la. xam nga euh, loolu loolu ba tey euh, peut-être que nit kooku su fekkee ni répondre na ci critère yi ñuy wax ci procédure de passation de marché kenn mënu ci taxal kenn il faut ñu xam lan la ñu wax. suñu nee nag suñu jëlee ñeent fukki nit kenn ku ci nekk ñu jox la marché te kenn bañ lay jox marché jaarul ci li nga xam ni moom la procédure de passation de marché yi wax mais ñeent fukk yooyu yëpp baaxul. mais su amee benn nit rek boo xam ni marché yu mu mën a gagné dafa respecter procédure de passation de marché yi mais kooku kenn mënu ci wax dara. Euh, ba noppi ma lay xamal ni que nii di la fàttali ni que ni gis nga alalu nguur dara taxu koo jóg lu dul faj soxla askan wi ba noppi teg ko. ci ay anam yoo xam ni dana garantir stabilité réew mi ma jox la benn exemple tey yow tey boo nekkoon directeur u COUD euh, ñu dem ba nga am tension de trésorerie mu am waxtu woo xam ni ñi ngi lay laaj TVA bi nga xam ni da nga ko war a verser impôt mm. TVA boobu yor nga ko sa trésorerie loolu dong nga yore comme chèque fekk na booba sa ay fournisseur am na ci ñoo xam ni nee nañu fayoo leen du ñu toggal xale yi ñu lekk yow nooy def ndax da ngay dem fay TVA ba wala da ngay fay fournisseur ba ñu toggal xale yi ñu lekk. fournisseur bi laa njëkkee jox. mais su boobaa dañ naan détournement d'objectif am na fekk na booba yow gannaaw ba nga xam ni da nga war a faj soxla askan wi da ko war a teg également ci stabilité réew mi stabilité réew moo boobu nag nga jël jiital. tax nga jël sa check boobu jox ko xale yi mais dugaloo dara sa poche. naam sax def nga détournement d'objectif donc nañu def ndànk am na ñu bëri ñu yuuxu sàccee nangam nangam sàcc mooy ki nga xam ni dafa jël lu mu moomul da aaki moo ko dugal ko ci poosam mais jàpp naa ni ci rapport Cour des comptes yi gisaguma loolu bu ñu demee nag ba toll foofu daañu xam ban position la ñuy jël. d'accord joxe nañu ay recommandation opposition bi jàpp nañ ne war nañu ubbi commission d'enquête parlementaire pour que ñenn ñi surtout des ministres qui ont été ñu dem wuyu est-ce que posture boobu nga am. Euh, seetal seen der quoi ce ne serait ah, xam nga posture boobu. Hmm. ñun biñ ko amee dafa jiitu lii. Hmm. xam nga lu tax mu jiitu ko parce que président Macky Sall moom moo yokk. ci mission wu assemblée nationale moo ci yokk benn poñ muy évaluation des politiques publiques musul am Sénégal kon ka nga xam ni yokk na loolu mais kooku kay moo euh, wàcc daanoo ci gën a gaaw <laughs> d'accord le troisième mandat une question importante ñëpp jàpp nañ ne président Macky Sall warul sax xalaat euh, demander beneen mandat candidature laataa ñoo waxu mandat Euh, ñu teg ko ci ay wax yoo xam ne waxoon na ko gis nañu député bu dem assemblée nationale tegal nit ñi ay audio président Macky Sall fu muy waxee ne man pare naa c'est mon dernier mandat mu bind ko ci livre am est-ce que Pape Mael en tant que administrateur parti wu APR yaa ngi ni ci doxalinu wala ci doxinu troisième mandat. Euh, d'abord lenn laa bëgg ñu leeral ko bu leen fàttali que ni président de la république taxaw na fi. nekkoon lu mu gëmoon lool lool ni day wàññi mandaam jële ko sept ans andi ko cinq ans mm-hmm. lu mu gëmoon lool ñun toog nañu secrétariat exécutif moom ci boppam mu laaj ñu ci lan mooy suñu xalaat ci loolu ba pare di defendre moom position comme quoi moom dafa war a wàññi mandaam jële ko juróom-ñaari at andi ko juróomi at kenn ku ci nekk yëkkati wax mu leen mu leen di déglu am na jamono yooyu ñoo xam ne dañ ko woon amoo duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ndax bañ lay fal. dañ la faloon pour sept ans. ni ko non puisque promettre nga ko sénégalais yi donc da nga ko war a def coow li waroo am mais moom kilifa la bu fekkoon ni dafa dogaloon ni day wàññi mandat bi jële ko juróom-ñaari at wàcce ko juróom mi at te tegu ko ci benn yoon. su boobaa ñun ñi nga xam ni ñoo àndoon ak moom te d'accordoon ci ak moom dinañu waroo ak moom te dana am taxawaay bu ñu taxaw su di woon également que da koy wàññi teg ko ci juróomi at te tegu ko ci yoon ña nga xam ni que nii dañu contre loola également dana daje ak ñoom mu ni comme dañu am réew te ñu am loo xam ni dañ koo bokk muy suñu bànqaas yi surtout ci wàllu yoon mais nañu dem ca ka nga xam ni sénégalais yépp d'accord nañ ni que ni bu waroo amee ci yu mel noonu kooku dong la ñu jox kàddu faw ñu xam ci ban réew lañ nekk. conseil constitutionnel. ndax dañu nekk ci réew moo xam ni bu ñu arrangé wul ñu damm loxo bànqaas yi bu ñu arrangé ñu wax ni suñu bànqaas yi bànqaas yu dëgër la mel ni bi Cour des comptes génnee rapport am il faut ñu xam ci lañ la nekk ba ñu tollee ci jamono yooyu mu laaj conseil constitutionnel yoonam newu ci. yoonam newu ci. conseil mhm. constitutionnel dafa seet la nga xam ni moom la yoon wax mu jël ko jàng ko ba mu ko jàngee la ci génn mooy président amul droit amul sañ-sañu wàññi mandaam mais ñi ngi nekk ci même situation bi ma di la xamal ni ñu bëri ñu ngi koy wax ñun ñun laa wax ñun ba ñu nekkee ci opposition bi di wut nguur gi. ba conseil constitutionnel ne Abdoulaye Wade am na droit nekk candidat ñun ci lañ daal di jóg. dugg ci ni léegi li ci des bay wéy na mbuus. kon dara jaru ko fi nañu ànd ak dal li nga xam ni ñun moom la ñu war a def ñi ngi ci mooy lan mooy dañuy def tout fexe ba téye nguur gi yóbbu Sénégal ci fi nga xam ni fa la ñu digoon sénégalais ni dañ leen fay yóbbu te suba suñu xëyee ñu ngi ciy def ay jéego derrière le président de la république résultat yaa ngi fii waaw lu ni fàng kenn du ko jeex. Hmm. waaye mag mu teen nag ni gisut asamaan bi kooku mënoo ci dara boo ko joxee ay lunettes de de soleil wala lunette euh, de myopie da da ngay sonn rek ndax gisut asamaan bi bi ci des mooy tey euh, euh, bu fekkee ni ñun alliance pour la république la ñu boole woon moo doon un projet derrière un homme. Hmm. projet boobu bi ñu ko taxawalee ba tey suba suñu xëyee. ñu ngi ciy gis ay jeexital yu am jariñ pour Sénégal ñu nekk it ay sénégalais am ay droit nag ni ñëpp amee droit comme ni ni ko Macky sàll amee droit waaw léegi kan moom may génneel benn article ci droit boo xam ni danaan mayel ci am sañul ni Macky sàll mooy sama candidat ndax ci démocratie la ñu nekk wala. vraiment. Uh-huh. kan mu am sañ-sañu génne benn article droit depuis les lois fondamentales les droits de l'homme ak foo mën a dem puiser ba ni Macky amul droit ni man candidat la opposition bi lu tolloon nañ fi ay jamono xamoon nañ ni que ni Karim Wade était frappé par l'illégibilité l'éligibilité du dëgg mais terewul ñoom ñu ni woon mooy mooy mooy seen candidat waaw léegi nag lu tax na ñu koy nangul ñooñu te ñun duñ ñu ko nangul tout ceci pour dire que ñun alliance pour la république benn constante la ñu am benn candidat la ñu am benn programme la ñu am constante bi c'est monsieur le président de la république candidat bi c'est Macky Sall projet bi c'est le plan Sénégal émergent en 2024 aux horizons parce que plan bi dañ ko tëgg teg ko aux horizons deux mille trente cinq ki fi nekk tey mi ngi bay waaram dañu bëgg mu gën a bay waaram waaw bu ñu àggee nag ba deux mille vingt neuf su boobaa ñu xool waaye fi ñu toll nii li nga xam ni sumb nañ ko te yoon may ñu ñu wéyal ko bu fekkee ni sénégalais yi en deux mille vingt quatre óolu nañ ñu jaarale ko ci président Macky Sall dañuy toog di ko wéyal ba deux mille vingt neuf buñ fa àggee nag su boobaa ñu xool. mais léegi lan lan ngeen di doyee moral ci tout ça. moral. moral politique. moral politique. Hmm. wala politique moom amul moral. si politique euh, politique rek am moral. politique dafa am moral. mais bu ko constitution bi mayee. Mhm. mu amaat beneen possibilité déposer candidature. Mhm. est-ce que moralement le président Macky Sall warul yem ci deux mandats yi mu am. mais su ko constitution mayee rek moral am moral amatu ko. ah bon. su ko constitution mayee. mais morale amatu fa parce que en tant que républicain la morale ne peut s'inspirer que des principes républicains et les principes républicains ñoo ñuy renvoyer n'est-ce pas à la consolidation de nos institutions mais on ne peut pas aller contre Euh, comment dirais le verdict est dicté par une institution. d'accord su dee ci politique lañ nekk. loolu leer na. waaw benn bokk yaakaar souvent yaa gis naa ay quelques personnes yi bokk. Euh, parti socialiste ñuy demandé na parti na parti boobu génn ci seen coalition est-ce que yéen a ngi ci liggéey pour mën a contrer encore remous yu mel noonu. xam nga ñun Benno Bokk Yaakaar dañu ànd ak suñuy nawle. Mm-hmm. ñoo xam ni ñu ñu naw lool sax ndax kenn ku ci nekk ci ñoom en 2012 bu la neexoon. nga bañ a supporter suñu kandidaa yàlla rek a xamoon lan moo ci mu jeexital ba lan la doon mais li nga xam ni gis nañ ko mooy ñoom ñëpp bàyyi woon nañu la ñu bëggoon lépp bootu ci ginnaaw président Macky Sall ñu taxawal Benno Bokk Yaakaar. Mm-hmm. ba ñu taxawalee Benno Bokk Yaakaar ñu ni suñu ànd bii dañ koy gën a dëgëral naka lañ koy gën a dëgërale duñ ko def àndu yaa ma neex rek mais dañ koy def ànd autour d'un programme autour d'un projet parce que partenariat bu gis. bu ko projet lalul rek naxaate mi ngi ci biir wala yaama neex a ngi si biir ñu ni léegi dañuy gën dëgëral suñu ànd boobu dañ koy gën dëgëral autour d'un projet autour du plan Sénégal émergent ànd ci ak ñoom di ko tëgg di ci joxe ay jeexital yoo xam ni suba su yu su Sénégal yi xëyee teg ci seen bët réew yu bëri naw ñu ci lool ba tax tey position wu Sénégal dans l'espace diplomatique international nekk position boo xam ni bu jarañee la waaw léegi ñu dem nag ba jëmmi jamono euh, ci biir ànd boobu nawloo bii ñi ngi ko teg ci kenn ku ci nekk na ngay doxalee sa kër suñu yoon nekku ci yoonu keneen nekku ci hmm. la nga xam ni noonu la parti socialiste di doxalee ci seen biir suñu yoonu APR nekk ci ni alliance pour la république di doxale ci biir yoonu AFP nekku ci waaye li nga xam ni moom la ñu mën a jàpp tey kuréel yooyu ca euh, seeni institution déggaguñ ci kenn ku wax ni que ni ñoom dañuy am beneen candidat wala boog dañuy génn Benno Bokk Yaakaar mm. ci seeni njaboot nag seeni principe démocratique de fonctionnement interne ñoom ñoo koy gérer su fekkee ni may nañu seen yenn militants yi ñuy exprimer wu sur des questions de l'heure ce qui n'est que euh, une sorte de de démonstration de la vitalité démocratique mm-hmm. waaye léegi ñun li ñu xam ni moom moo ñu intéressé mooy parti boo ci gis bu ca tolloo da nga def congrès da nga wax kan ngay jàppale comme candidat mais pour le moment nous considérons ko Benno Bokk Yaakaar nekk na coalition exemplaire qui a battu tous les records en termes de longévité de coalition dans le Sénégal et je, je crois même euh, ailleurs également et ñu ngi ciy am mbégte di delloo encore une fois njukkal bépp kuréel muy parti politique muy association muy personnalité boo xam ni bokk nga ci Benno Bokk Yaakaar et même plus large boo xam ni yaa ngi dugg ci dynamique majorité présidentielle mais pour l'heure euh, la question n'est pas encore euh, posée au sein de Benno Bokk Yaakaar comme une problématique majeure d'ailleurs euh, euh, je crois que euh, dans les jours à venir daañ ci am lu ñu gën a leer d'accord affaire u Adji yëngal na dëkk bi euh, saa yu ñu demee ba xaw ko fàtte am ay mbir yu yu jug démb le gynécologue bi nga xam ne moom moo saytoon wér-gu-yaram xale bi def sorti cité ci seen responsable politique bi bokk ci yenn mooy kii di Mamour Diallo nee na woo na ko ay yoon yoon ci jour bi nga xam ne xale bi ànd nañ ko ci biiroom pour mu saytu ko loolu bi nga ko yëgee lan la defee yow. daara ma deful xam nga defuma dara. Hmm. mooy euh, mbir bu ñu demee ba ñu ni ma nga ca yoon maandute dafa laaj kenn ku ci nekk mën a dal négandiku óolu it ña nga xam ni ñoo ñu fa toogal muy suñuy magistrat Euh, juge bi nga xam ni moo yore instruction bi tey yu ci bëri ci appréciation xanaa xamoo ni même en droit dañuy on parle de l'intime conviction mm-hmm. dafay am waaw kooku nag nañ ko bàyyi mi ngi mené ay investigation du dëgg au contraire dafa mel ni mbir mi dañoo bëgg faw rek teqatal ko waaw koo xam ni mi ngi daagu te jàpp nga ni fa mu jëm foofu la war a jëm doxin wi muy dox noonu la war a doxe loo eh, koy teqatal doyee <laughs> yenn yi teqatal suñu suñ suñu yoon la teqatal magistrat yi la nañ leen wóolu mbir mi bi mu amee léegi li li ci xew yëpp mënoon na fi ñàkk ay bakkan yu rot mënoon na fi ñàkk du dëgg coow li mënoon na fi ñàkk suba suñu xëyee nag tribunal ñu ngay jugé ay affaire yu gën a noonu te coow jibul ñun hmm, ci suñu wàllu bopp am na koo xam ne ci ñun la bokkoon muy Sitor Ndour joué woon fi nag parmi les premiers rôles dans le parti nekkoon fi directeur du COUD nekkoon fi président conseil d'administration SAED nekk membre secrétariat exécutif bu suñu parti waaw mais ñun ni ñu goree ba óolu yoon bi nga xam ni dafa soxla Sitor Sitor gannaaw bañ ko jiiñee ndax ba léegi yoon waxul ni moo def gannaaw bañ ko jiiñee yoon jàpp ni kat ku ñu jiiñ lu mel noonu ak la mu am ci information ca lu mel noonu dañ koo war a téye mais bañ ko téye ñun yëngaluñu. Mm-hmm. mais te ñun kenn dàq ñoo yëngal te bu dee li ñuy jiiñ mi ngi ci ñun mooy maanaam dañuy damm loxo magistrat yi kon kay ka bokk ci ñun kon tey du nelaw du nekk prison keneen nekk ci ci ci biti du dëgg kon jàpp naa ni que nii yooyu yëpp ñuy wax wax dëgg yàlla. mais ñaar nit ñoonu seen enjeu ñoo bokkul. lu tax seen enjeu bokkul. Kale c'est le premier c'est le numéro un de l'opposition sénégalaise. lu waa xamul loolu. mais moo tiital pouvoir bi. mais loi xamul loolu. loi boo taxawee devant le juge mais juge bi xamul yaay kan xam nga lan la xam juge bi li ko intéressé mooy lan nga def mais du yaay kan loolu gis nga xam nga loolu sax bu ñu demee ba di ko dugal suñu xel. mooy bëgguñu dooleel suñuy bànqaas ku ñuy tuumal nii nee na euh, juge bi ci la quoi procureur bi Serigne Bassirou Gueye ci complot bi la bokkoon Mamour Diallo bi bokk ci yenn ci complot bi la bokk cité na ay tour ay avocat cité na ku ne est-ce que du loolu tax mbir mi xaw a gën a complexe. billaay bëggoon naa la tontu lool ci loolu waaye loolu dara da cee leerul xam nga lan moo leer. Hmm. li leer mooy ki ñu tuumaal moom nee na dem na foofu lu tax ñu bëgg kenn bëggul wax ci li leer te mu leer na ñëpp. ñëpp la leer ndax moo ko wax man de wax dëgg yàlla keroog bañ ko tuumaalee dama taxaw te gis sama ñi ma nekkaloon ñi may dégg ñi may seetaan dama ni leen nañu maandu nañu maandu ndax nag contrairement li nga wax ñu ragaluñu kenn ci politique de te dañoo gisul sax lu tax ñu ragal ñu war fi ragal kenn ñun ñu dem élection gagné demaat élection gagné demaat élection gagné 2019 bii wu nga xam ni mooy dernière élection présidentielle moom mi nga xam ni kooku ngay wax il est il est il est il est <laughs> il est très loin derrière nous très loin derrière nous. te diggante bi xale màgg na de. mais diggante bi élection législative politique lenn rek lañu mën a xaymaa mooy. ay élection près de vingt cinq députés la am parti am kese. ñun ñu am ñaata. ñun ñu am ñaata. moom parti am kese yéen coalition bi ngeen am ay cinquante. quatre-vingt du parti am rek ah. attention. ça une mauvaise lecture. non parti wu Sonko kese sur les cinquante de l'oppo de de de de parce que c'est vrai am na ci près de vingt cinq députés. Oh, ndok loolu loolu loolu loolu monté en puissance la. waaw mais ndok. waaye ça fait peur aussi. waaye ñun non pas du tout. parce que ba tey ba xoolal ba tey ba tey ñun ñoo leen ñun gisuñu lu ñu tiital xam nga kan moo lay tiital. Hmm. ki nga xam ni dem na ba nga xam ni dañ naan benn baat wala ñaari baat moo dox seen diggante su boobaa sax nga xaw a am loo loo loo laam-laamee nga xaw a am loo laam-laamee et encore que élection législative la ñu wax mais bul fàtte ni l' élection présidentielle les sénégalais ils sauront faire la différence entre ki nga xam ni dafa fexe ba. Et euh, Sénégal reconquérir sa position diplomatique internationale di respecter également la loi distingue ko ak ki nga xam ni bu couvre-feu amee dana am leneen lu ko jaral mu taal otoom dem fu mu dem <laughs> ah, loolu ñu wax ci loolu nag moo leer loolu moom lu leer la ci mbir mi la xew la xew ca biir Sweet Beauté Farba Ngom nee ñëpp fay dem moom rek la yàlla weer xew ca Sweet Beauté hmm. wax dëgg yàlla xaw ma ko wax dëgg yàlla la xew ca diggante ndaw seek waa ji wax dëgg yàlla xaw ma ko ku ca mën a wax ak ku ca mën a jëf wax dëgg yàlla xaw ma ko mais li nga xam ni mën naa jàpp ni dëgg la ndax waa ji ci tuumaal ci boppam moo ko waxal boppam li nga xam ni naa jàpp ni dëgg la mooy dem naa fa mooy sama ndigg da doon metti maase wu na mooy maase nañ ma yëg naa ci sam bopp yëg naa ci sam bopp <laughs> loolu daal xam naa ni moom ku ma tegal kaamil ma du ma ko waat sax ndax moom moo ko wax. Euh. waaw mën nañu jàpp ni dëgg la ndax nit du bañ boppam. Mm. waaw ku toog ñu lay tuumaal nga ni dem naa fa ndax ba ma fay dem la ma doon yëg sama yaram man dong maa ko xam xamoo ni wax boobu dafa nekk wax bu am solo la mu doon yëg ci yaramam moom dong moo ko xam moom moo ko wax xaw ma lan la doon yëg bokkuñu woon yëg-yëg ci waxtu woo te bu ñu bokkoon yëg-yëg amaana du ñu bokk ci nañ koy faje nga jóg yëg la ngay yëg du dëgg jóg taalal sa bopp oto yaa ko waxal sa bopp dem ba ca bërëb ba yaa ko waxal sa bopp ba nga demee la nga doon xaar ni moo baax ca sa yaram ja yaa waxal sa bopp ni defal nañ la ko ba nga wér péng dellu sa kër hmm. la ci mën a xew ci ginnaaw nag loolu sama yoon nekku ci hmm. mais ki ko tuumal dem na dem ba ne moom it euh, ci audio yi nga xam ne fuyute na te lu mu ci wax yëpp ab piège la woon ba mu doon tendre kii di sëriñam loolu est-ce que du ñaaw xel ci dossier bi fu mu toll ak conséquence yu mu engendré fi ci réew mi. xam nga euh, amul sens sax ci ngeen di requérir sama position wala sama xalaat ci loolu amul benn sens. parce que xam nga acteur politique nga bu majeur nga fii ci. waaw mais acteur politique la mais ñi ngi wax ci benn affaire juridique moo tax il faut ñu. xam impliqué l'état du Sénégal mais justement mais dans l'état du Sénégal comme de fois la nit ñi naan nañu def séparation des pouvoirs. moo tax man xaw ma lan la nit ñi bëgg. mais soo dee def séparation du pouvoir. la nga xam ni mooy wàllu exécutif bi. par exemple lu jëm ci l'hydro rural. lu jëm ci l'approvisionnement en eau potable. loolu boo ma ci laajee ma wax la que ni liñ fi def kenn mësu ko fi def. li jëm ci les infrastructures routières. boo ma laajee ma wax la li ñu fi def kenn mosu ko fi def li jëm ci développement humain boo ma laajee ma wax la mais li nga xam ni dafa dem ci wàllu droit yow yaa wax ni dañu def séparation du pouvoir mais dem leen ngeen laaj ña nga xam ni ñoo fa nekk di taxawal fa droit ak ña nga xam ni ñoom lañ fa woo waaye man sama avis amu ci sens parce que bul fàtte leen wax naa la ko sànq ak lu droit am am am am am droit dafa intégrer l'intime conviction mm. te am na ci dossier bi kenn koo xam ni moom dong la intime conviction am solo ci mbir mi c'est le juge kon li ma ci xalaat amul solo naa dégg ni yow rek te maandu te óolu suñuy magistrat mais mais Pape Mayel Thiam gëm na ne viole am na wala amul. Euh, mën nag yàlla dafa am lu ma nattoo du ma wax lu ma xamut nee naa la la xew ci biir Sweet Beauté. xamoo ko xaw ma ko d'accord. d' accord loolu c'est question de précision rek la woon <laughs> lu am solo la Serigne Bassirou Gueye mi nga xam ne tudd nañ ko ay yoon yoon ci ci bi bi surtout Ousmane ko moom da ko xaw a ñeme moom <laughs> moom la ñu yóbbu OFNAC gars yi nee nañu musiba la nga jël ku mel ni Serigne Bassirou Gueye delloo ko ci OFNAC mi nga xam ne yore na ay dossiers yoo xam ne jóge woon na ci OMAST bi ko kale yoree mooy soxna si di Nafi Ngom Keïta est-ce que du musiba ci ci ci ci tolluwaayu réew mi. ban lecture nga am ci xamee bi nga xam ne xam nga ko kii di man de mosuma dégg ni sëñ Bassirou Gueye mos euh, juridiction yi condamné nañ ko ci lu mu def te defuwul mosuma koo dégg Sénégal nag réew la moo xam ni moom tuuma yàgg na fi. Hmm. te jàpp naa ni doomu aadama damay faral di wax am na ñaar yoo xam ni ak lu mu jege jege yàlla waru ko ko ñaan ndax du ko ko may yàlla bu ma dee ak yàlla bu ma am noon kenn mënu koo am te ko am noonu am waxi ginnaaw waaye man de mësuma dégg ni Basirou géey yoon condamné na ko ci loo xam ni da koo def te defu mësuma ko dégg. bi mag Sall di wax dafa am ay dossiers yoo xam ne maa ci teg sama kudd. moom moo nekkoon procureur de la république fii. Mhm. mu mënoon ci réagir ne non yenn dossiers yi foog mooy instruire ko defu ko boo jëlee nit ku mel noonu yóbbu ko ci nag foofu nga xam ne. magistrat bi am na possibilité wu instruire yenn documents yi comme ñu am na possibilité noppi ci yenn documents yi. est-ce que du gën a ñaaw njort. est-ce que ça ne donne pas raison à l'opposition qui ne croit pas en lui. moi je ne je crois pas d'autant plus que dans tous les cas le procureur de la République suñu loi ni mu tëddee mais il dépend ministre de la justice. Mm-hmm. il faut ñu comprendre également que ni dafa am procureur de la République am le juge le tribunal. le procureur de la république moom mooy avocat wu réew mi. juge dañ koy jox ay documents rek de yu ñu ko joxul man na ci. waaw mais kooku mi ngi wéy ci ndigalu président de la république c'est ça noonu la suñu réew tëddee mais nag mënul juger. Hmm. mënul juger waaw mën na apprécier benn benn mbir du dëgg euh, saisir le tribunal def plaidoyer am du dëgg. fexe ba tribunal tegaat yëf yi ci yoon mën na ko def mais dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation et de la stabilité nationale d'accord parce que bul fàtte ni aussi responsabilité boo mën a duñ ko ñàkk duñ ko mën a ñemee bañ a la dame Amy Ndiaye ñibbi gis nañu ces de en tout cas agresseurs fu mu toll nii ils sont mis aux arrêts euh, euh, situation bi na nga ko jàngatee jàpp nañ ne déjà Euh, que waruñu attaquer le leader du PUR mu nekk marabu boo xam ne dafay def politique en même temps ñun xam nañ ko parce que boo nekkee ci ab réew démocratique euh, nga am parti politique normalement le débat politique war na la mën a intéressé est-ce que jàpp nga ne on doit faire le distinguo entre Moustapha Sy l'acteur politique et Moustapha Sy le responsable moral du PUR. d'abord li may bëgg njëkk a leeral mooy ba tey Amy Ndiaye ñii bi tuddul kenn. Hmm. tuddul Moustapha Sy. tuddul mbakki Mbàkke tuddul Laayeen. tuddul sax parti. tuddul sax parti la taxit ma wax mu wax la mu wax mooy yow boo jógee ñëw taxaw ni ah waaw sa leader day moo fi waxoon lii ma ni la yow it sa leader a fi waxoon lii te mu nekk loo xam ne lu nekk la. waaw loolu lu fi andi ay dóorante. Hmm. lu fi andi ay dóorante. xam nga loolu lañ la ma inspiré dama am gàcce dama am gàcce ñaari yoon dama am gàcce en tant que républicain am gàcce en tant que talibé cheikh du réaction wu talibé cheikh ku defendre sa sëriñ tax nga jël kurpeñ wala wéq di ko wéq jigéenu wérul mooy déggoo message yu cheikh te li may wax dama koy assume gis na sëñ Hadji daf ko bañ ba liggéeyam yemalewu ko ci njabootam ñun dañoo am maami mu xàddam maxtaar mii andi leen fi xam na bu baax li may wax che kun taalibe cheikh day ormal jigéen taalibe cheikh dëgg day ormal jigéen ku défendre sa sëriñ jaral nga jóg di weq jigéenu wéral ba di ko causel ay laago mooy déggoo message yu Cheikh ma jàpp ni sama mbokki taalibe yooyu def nañu erreur dañoo juum te jàpp nañ ni sax ka ñuy défendre man jàpp naa ni ka ñuy défendre jàpp na ni taalibe yooyu dañoo juum ndax du taxawaayu taalibe Cheikh ah su ko defee nag dañu nekk ci république ndaw si nga xam ni mooy lonorable député Amy Ndiaye moom lañu gaañ moom lañu tooñ moom dong moo mën a xam naka lañ koy dàmpe ànd ci nag ak yoon hmm. du dëgg tey sax yoon wax na ni même moom bu demoon ba ni génne na plaintam terewul procureur de la république am na sañ-sañu. toppaat mbir yooyu ndax dafa am li ñuy wax trouble à l'ordre public. ndax keroog nit ku baax ku nekk ba nga gisee wéq boobu ñu wéq jigéen si am na lu jóge ci yow kon trouble à l'ordre public am na mais trouble à l'ordre public nag bu amee c'est normal que suñu juridiction yi taxaw temm pour que wan sénégalais yëpp ni lii jaaduwul rafetul. taxawit taxawaay boo xam ni bu ëllëgee ku mu bëggoon nekk sa xelit doo ko def jigéen dañ koy ormal jigéen ak lum la mën a def ndax leer na ma leer yàlla ni leer na ma leer yàlla ni wéq boobu ñu wéq jigéen gi bu doon góor la woon bu taxaw tollox ñoom wala mu ëpp leen lool wóor na ma wóor yàlla ni la Ami Njaay ñii bi waxoon bu doon ku ku meloon ni que ni yëkk ni moo nekkoon député toog l'Assemblée nationale bu waxee loolu kenn du ñëw pes ko wala. waaw loolu day. kon boog quelque part boo ko dee xool dafay mel ni lâcheté day dugg. te gëw ma ni également défendre xadara bi defendre talibé cheikh yi défendre Serigne Moustapha Sy moo leen yóbbee ñu def loolu. nit ku ci nekk na nga mel. foo jëm moom nga yóbbaale. Hmm. waaw te gëw ma ni ñooñu. Hmm. keroog ba ñuy dugg assemblée nationale dugg nañ fa dugginu taalibe Cheikh taxawal nañ fa taxawaayu taalibe Cheikh ndax loolu bokkul ci màndargay taalibe Cheikh. d'accord Pape Alé Niang wax ñu yóbbu prison gars yi xeexal ko ñu libéré ko. xam nga euh, mbir moomu dafa nekk mbir moo xam ni euh, dañ ci wax un peu nekk tuuti mal nekk également à l'aise mal à nekk mal à parce que bu ñu sañoon benn sénégalais du dem prison. ok rawatina nag koo xam ni jàpp nañ ni acteur nga ci processus démocratique bi bu dee ni journaliste nga. ma nekk ci à l'aise parce que faw ñu fonk suñu réew respecter suñu réew faw également kenn ku ci nekk di nawloo ak sa morom te nit lu muy wax day nekk lu ko leer. Mm-hmm. gis nga boo demee Amérique dem Europe man def naa vingt neuf ans à l'étranger amoon na ay xarit yoo xam ni c'est des journalistes d'investigation de renommée internationale de renommée mondial suba soo xëyee yaa ngi leen di lire dans des journaux yu mel ni Le Monde et cetera am nañu ay secret yoo xam ni xam nañ ko ci seeni réew mm-hmm. duñ ko génne mukk mukk ci àdduna responsabilité professionnelle moo tax léeg-léeg di nga gis sax soo xoolee réew yi développé wu boo demee ba benn régime daanu ngay doog a dégg ni ñu génne benn dossier ça ne veut pas dire que régime ba dafay daanu ñu koy doog a xam mais dem nañu ba gis ni que ni léegi dossier boobu amatul benn impact ci enjeu du moment ñu génne ko kon loolu dafa laaj benn taxawaay bi ci des mooy doomu aadama looy wax war na am fu wóor foo ko teg foo ko firnde ñetteel bi mooy kenn amul droit sosal sa nawle yow ki nga dëkkandool ak rôle bu mu mën a jouer ci république bi mais amoo droit di ko sosal Masewoo nag nga jël koo xam ni dafa am responsabilité bu rëy ci réew mi nekk la directeur général de la police di aar askan wi di dimmali yoon ci tëralin yi muy tëral nga taxaw àdduna wërngal këpp di yàq ko lu mel ni xeme sosol ko loo xam ni dara nekku ci waay waay ku mu doon yow du la neex ndax ka nga xam ni moom la ñu waxal loolu dafa am njaboot am ay responsabilités yu muy joué am ay subordonné am lu mu war a incarné nekk même une institution kon kooku dañ ko war a ormal bu dooni sax danga koo xamal loo xam ni boo ko waxee dana fragiliser autorité am boo nekkee républicain nga war ko jël denc ko masi woon nag ngay dem di xalaat loo xam ni dara nekku ci ñëw di ko teg ci deram réew moo ko def ñu téye la ak koo mën a doon ku ne bu dee nag mës nga ko dégg ci benn réew boo xam ni kenn def na lu tolloog noonu ñu bàyyi ko muy doxi soxlaam nga wax ma réew moo ko def ñu téye la moo tax mais mais y a la tolérance juridictionnelle aussi ak avertissement ñu war a mujjee ci tëj ñu war a nekk loolu war a nekk le dernier choix surtout nit ko xam ne nee ñu daf feebar. xam nga man am na yoo xam ni wax naa la ko sànq ndax dañ ko war a bàyyi wala waruñu ko bàyyi encore une fois yoon mooy décider loolu yoon ñoom ñooy apprécier waaye li nga xam ni teg naa ci sama bët te mën ci wax mooy day am na luñ ko njëkk a jiiñ ba tëj ko. tolérance boobu ngay wax jàpp naa ni moo yóbbee woon yoon ñu dem ba may ko liberté provisoire. mu waroon tënku ci yenn charte yi. nga war a xam sa bopp nag wax dëgg yàlla parce que gis nga affaire védétariat yooyu amul solo <laughs> amul solo jaru ko ndax mën nga nekk journaliste di wax lu la neex waaye nga teg ko ci yoon ormal sa bopp ormal sa njaboot bañ a yóbbi fitna sa njaboot. ci ay wax yoo xam ni tegoo ko fenn te mënoo wax a wax wax ba suñu borom def lu mu namul mënoo wax a wax wax ba suñu borom namee ni Macky Sall mooy doon président 2024 du ko doon kon tee ngaa dal ormal ñi nga xam ni yi ormal sax ñi nga xam ni say naataango la ñu yéen journalistes yi c'est c'est un peu gênant je comprends certains de vos collègues dañuy bokk nii ci dynamique bu jàppale seen collègue je les comprends mais wóor na ma ni intérieurement am na ci ñoo xam ni waxtaan naa ak ñoom ils sont un peu mal à l'aise parce que ngay jàppale koo xam ni leer na la que ni kii dafa tooñ bon te nga war koo jàppale parce que adduna baa ngi la teg bët dafa metti loolu nag war na ko épargner ay naataangoom épargne ko njabootam épargner ko ay soppeem waaye li mu def nag dafa ëpp moo def nag ñoom minke d'accord bon on arrive à la fin de émission Mimi Touré kañ nga mujjee wax ak ci Mimi Touré. bi euh, yàgg na defe naa bi ma mujjee wax ak moom. bu dee da leen a <laughs> intéressé dëgg euh, defe naa la veille ou deux jours avant ñuy installé le bureau de l'Assemblée nationale. booba tey dafa benn jéego pour wax ak moom rencontrer ko jëm ko convaincre mu ñëwaat à la maison defoo ko. mais écoute euh, bis bu ma bis bu jotee. te ma war ko def danaa ko def. jotul incha allah. parce que là elle devient un poids pour l'APR pour la mouvance présidentielle. mais écoute man gisewuma ko noonu. gisewuma ko noonu. na ne pas. gisee wu ma ko noonu non ñun actuellement on se sent pas menacé on se on est très loin de nous sentir menacé expliqué naa la ko sànq dafa amul loo xam ni mi ngi suñu kanam loo xam ni war nañu sentir mu et naa leen wax aussi beneen affaire bu am solo ñi ngi jëm deux mille vingt quatre mais xam nga ni ce n'est pas un cadeau pour Macky Sall que de lui dire que mën nga nekkaat candidat. Hmm. ça il faut que parce que débat bi également. il faut ñu ñu xool ko de de tous les côtés hein parce que ay la yëwoon c'est un homme qui a jamais à jamais kenn mënta tuddati histoire u Sénégal te déggoo turam kenn mënta tudd histoire u Sénégal histoire u euh, nu mu tuddati euh, euh, comment dire développement wu Sénégal te jëloo turam teg ci biir parce que c'est le premier à avoir mis en place un plan à des horizons bien déterminés kenn mënta jóge fii dem Casamance te sa xel nekkul ci Macky Sall <laughs> parce que foo daw rek <laughs> foo daw rek da nga romb lu mu def du dëgg kon moom am na way lu hmm. dëgg la ca xanaa kay la ca des mooy patriotisme am engagement pour le développement du pays ak li nga xam ni moom xam na ko comme mu nekk les enjeux de l'heure loolu moo tax ñun mu bëgg ak mu bañ danañu weñ loxoom pour mu nekk candidat mais jusqu'à présent ñun on considère que ce n'est pas un cadeau pour lui hmm. tey li gënoon yomb ci moom tey mais dem noppalu ji quoi mooy dem noppalu yi parce que il a sa vie il a sa vie suba su xëyee mi ngi wax di di def lu jëm ci développer réew mi yow heure yaa ko ëpp ay heure de sommeil yow yaa ko gën a dal xel ci ay mbir yoo xam ni du dara lu ko concerné moom directement mais mbiru réew mi mbiru askan wi mbiru Afrique mbiru àdduna bi mu jël ko yenu ko du am temps waxtaan ak njabootam du am temps passer des moments avec son épouse du am temps dem seeti ay mbokkam amul temps ñëw toog ci boppu koñ bi naan caayin te c'est un homme de la banlieue yooyu yëpp mu nekk yoo xam ni c'est des éléments yu ko manqué donc war nañu delloosiwaat suñu xel ormal ko xam ni kat jox ko aussi cër ba nga xam ni moom lañ ko war a jox bu demee moom ba estimer que li nga xam ni moom lañ koy woo pour mu nekk suñu candidat. war na ko mën a wuyu. mën na ci wuyu te xam naa da ci wuyu mu wuyu ci ñu ànd ak moom te bu ñu ànd moom. gisuma dara lu ñuy jàkkaar lool dama gisul benn élément objectif boo xam ni war na mën tax ñun ñu ragal dem élection ñu ragal kenn ci opposition bi léegi nag politique lañ nekk politique c'est la loi de l'addition ku ñu jàpp ni yow mii bu ñu la seetee ba convaincre la boo ñëwee dana indi yokkute ci li nga xam ni moom la ñu ut ñun on n'a pas d'ennemi ay adversaire la ñu amee amuñu ay ennemi adversaire nag mbirum par par loola rek. donc Mimi yëngalu leen réellement. potentiel candidat opposé au président Macky Sall. j'aimerais pas que ñu personnaliser débat bi. d'accord moom. je léegi je ne le euh, soumettre na à l'Assemblée nationale euh, une proposition pour que ñu installer rapidement. Euh, la haute cour de justice ça aussi ça ne vous ébranle pas. non bon su fekkee ni assemblée nationale à euh, euh, sa majorité comme l'indique la démocratie wax nañ ni que ni dañuy installer la haute cour de justice man ça ne me ça ne me dérange pas moi je suis pour le droit je suis pour le renforcement du droit man loolu la gëm man dama gëm un état de droit. dama ko gëm. comme Pape Naël aussi gëmul la limitation des mandats. pardon gëwuma ko man su dee man rek la. je crois pas à la limitation je crois pas à l'efficacité de la limitation des mandats xam nga lu tax. si ñu koy prôné fan lañ ko teg nañ buñ ma buñ la fan lañ ko teg en réalité. nguur kenn du ko ñedd. concrètement. loolu la Senghor waxoon de. non mais Senghor ba mu koy wax def na fi ñaar fukki at ak lu doog <laughs> kon ñu ko fenn xam nga fan lañ ko teg <laughs> dañ ko teg ci benn mimétisme boo xam ni c'est l'expression d'un complexe inspiré, africain inspiré de l'Europe inspiré de l'Europe euh, moi très souvent les gens me disent lan moo tax Alliance pour la République amul structuration verticale encore une fois ma leen di wax ni lii c'est l'expression d'un complexe parce que Lénine théorisé woon na ko structuration verticale ku jóg taxawal parti politique ñu structuration verticale lan moo tax structuré woon or ñun on a fait une une structuration intelligente qui qui a tenu compte de l'histoire des partis politiques du Sénégal qui a tenu compte des forces de notre adversaire de l'époque et qui a tenu compte de notre exigence de favoriser la croissance de notre parti ba ñu jëlee pouvoir ñu combiner yooyu yëpp ni non dañuy def une structuration horizontale muy joxe ay résultat élection bu ñëw ñu dóor parti politique loolu dong tax laa jóg doo daayira doo tarixa di gagné ñu ni faaw ñu def structuration horizontale c'est exactement la même chose en ce qui concerne l'histoire des mandats xoolal Allemagne Merkel ñaata mandat la fa def ñaata at la fa toog. yàgg na fa toog xoolal Russie Poutine ñaata at la fa toog. gis nga tubaab yi xëyuñu xëy rek au lendemain de la guerre mondiale. instaurer hmm. l'histoire de de de de. de limitation des mandats hmm. de limitation des mandats. ils ont réglé les problèmes économiques sociaux. ils ont stabilisé. l'économie l'économie certains agrégats socio-économiques socio-économiques. Macron mës nga ko dégg nii mi ngi inauguré ji forage. jamais ñun ci foofu lañ toll di ñun foofu lañ toll. Joe Biden gis nga ko muy dem di inauguré benn autopont. ñun foofu lañ toll. donc réew bu tolloo foofu li nga xam ni moo war a nekk sa préoccupation mooy stabilité am. la base mooy euh, également li nga xam ni mooy la solidité de ces infrastructures mooy tekk benn euh, système économique durable soo layee la lal lal boo xam ni wóor na leen ni dëgër na su boobaa loo ci teg naan ay tuddee ko ay promotion de la démocratie ak nangam nangam mais qu'à cela ne tienne. je suis un démocrate. Je vis dans un pays où il y a une constitution. La constitution dit que on, les mandats sont limités à deux. D'accord Mais la constitution n'a pas dit que celui qui fait un premier mandat n'a pas le droit de faire un deuxième. Je suis dans un pays qui est régi par des lois, avec un conseil constitutionnel. Je me dois d'avoir confiance à ce Conseil constitutionnel-là. Mmh. Ah Mais soudé de mon point de vue personnel, mmh. la limitation des mandats n'est pas une obligation pour des pays en voie de développement. Comme, comme, comme notre pays. Monsieur Mayel Thiam ñoo ngi lay jaajëfal am mbégte ci tontu yi nga xam ne tontu nga ñu ko dina bàyyi rek nga tàggoo ak suñu mbokk internet yi. Euh, xanaa di leen euh, sant di leen gërëm. di euh, wax rek ni que ni ñun ñoo bokk réew mi kenn mënu koo xar ñaar. Hmm. Sénégal bu woyo woyofee ñun ñëpp ñoo ko yëg bu Sénégal dëgëree. Hmm. ñun ñëpp ñoo ko yëg dama bañoon a wax yolom parce que yolom yolom moom dafa am koo xam ne moom lañ koy tuddee <laughs> moo tax bëgguma wax ni bu Sénégal yolomee mais naa wax rek ni Sénégal bu dëgëree ñun ñëpp ñoo ko bokk. bu dee safaan wa également ñun ñëpp ñoo koy yëg mën nañu waroon ak ci ay xalaat langue politique la euh. mën nañu werante man léeg-léeg dina am ñoo xam ni damay daje ñoom ci plateau bi ñu nekk ci opposition bi ñu werante ba mu tàng jër waaye bu ñu génnee tàppante loolu mooy adduna waroo mënu fee ñàkk <laughs> waaye kii li nga xam ni moom la ñu bokk muy réew mi nañu fexe ba dëgëral ko dëgëral réew nag mooy dëgëral bànqaas yi dëgëral réew mooy fonk infrastructure yi dëgëral réew mooy nga remplir say responsabilité civiques dëgëral réew mooy nga wóolu également ñi nga xam ni ñoom lañ fi teg ñu nekk suñuy institution dëgëral réew également li ci bokkul mooy nekk di saaga rek di yàq der rek ay gor nga nekk di yàq deru gor di ko saaga diggante tàkkusaan ba timis timis jot nga bëgg a jàpp julli jaru ko jaru ko ndax nag jàpp naa ni que ni ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk bàyyi ku ci am loo xalaat mais wax ko teg ci taabal ji mais nga ormal bañ ci tooñ kenn nag waaw keneen wax xalaatam teg ci kaw taabal ji ñu xool la nga xam ni moo gën ci réew mi mais ñu ànd dox ci jarul coow gannaaw ñoo bokk bëgg-bëgg bu ñu kenn bu ñu joxee kenn ku ci nekk nag cëram nañ ko ko jox ba mu mat sëkk lu président de la république ñun ñoo ko fal ku ko ñàkk ormal rek ñàkk nga ormal sénégalais bu nekk dañ ko jox cëram. am na solo kenn ku ne buñ la joxee sa cër. Hmm. te ñun ñëpp ñu bokk bëgg-bëgg daañu àgg fa ñu bëgg àgg waaye nag bu dee nag dañoo bëgg nag euh, ñàkk ormalante te du ñu jox kenn ku ci nekk cëram bu ko defee rek yoon yi day daal di waroo. Hmm. xam nga ñaar ñu ñu sédd la ñaar téeméer. boo ci déggee coow rek mooy am na ku bëgg lu ëpp téeméer <laughs> na kenn ku ci nekk yem ci sa téeméer rek jàmm ni ñooy <laughs> merci beaucoup mbokku internet di ñoo ngi leen di jaajëfal di leen dig dajee jërëjëf beneen yoon fii ci Sénégal ak beneen invité jërë ngeen jëf